أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي فضل شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الصحر فليصمه ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi àndaat ak yéen ci seen télévision TSL di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di ci jiital waa kër gi ak ki jiite kër gi ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla defal leen tawfiq mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci waxtaan woo xam ne ñu ngi koy tàmbali muy xutatul istifaada min ar ramadan ñu ngi jublu weeru koor kon dafa am lu mu laaj ci ab jullit ci ban plan ci ban doxalin ci ban tëralin lay tëral ban doxalin lay doxal yan yoon lay jaar ba mën a jëriñoo ci weeru koor mbokk yi ay jullit a ngi nii di fekke weeru koor te duñ ko jëriñoo ay jaamu yàlla ngi nii yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dina leen may njëriñ fekke weeru koor waaye duñ ci jëriñu loolu moo tax mbokk yi ñu bëgg ànd fàttali suñu bopp fàttali leen ne weeru koor comme mi ngi dëgmal dafa laaj jullit bi mu toog def emploi de temps barnaamij istimaalul awqat ana yan yoon ana aw doxalin aw tëralin wu muy sóobu ba jëriñu ci weeru koor mbokk yi pour jullit jëriñu ci weeru koor il faut mu taxawal aw doxalin il faut mu tëral aw doxalin bi ci njëkk mooy al azmu sadiq ala tawbati nusuux wa nadam ala ma faat min taqsirika fi jambillah ngalawaay yow sama mbokku jullit amal dogu gu dëgg ci tuub say bàkkaar jullit dafa war a am dogu ci weeru koor pour yàlla jéggal koy bàkkaaram mu dogu dogu gu dëgg lépp doomu aadama di def ci kaw suuf su ci amul ak dogu loolu du sotti ci lu mun a doon foog nga jël ay décision al azm as-sadiq jël dogu gu dëggu doxalin wu dëggu tëralin wu dëggu pour jëriñu ci weeru koor nan ngay def ba tuub say bàkkaar ci biir weer wi bàkkaar yi paase ak wàññiku gi nga wàññiku ci jaamu yàlla waxtu yi nga daan tardeel lépp ci jaamu yàlla li nga doon mànkeel nga fexe nga dëggu ci weer wi nga fexe nga tuub lépp loo defoon ci ñaawteef amul kenn ci ñun lu dul defkatu bàkkaar la kulli ibnu aadama xataa wa xayrul xataaina attawaabin muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax wax ci nee na mbindeef yépp ay defkatu bàkkaar lañ ki gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ki tuub amul ci mbindeef yi ku dul def bàkkaar léeg-léeg nga wax nit ñi dañuy def bàkkaar am ku gàtt xel ku toog ci ginnaaw naan de diw bokk ci mani diw moomu ngay xalaat moo gën a fees ay bakkaar keneen ku dul moom yonent bi moo ne kulli ibnu aadama xatta doomu aadama yëpp ay defkatu bàkkaar lañ kon li jaadu ñu ngi dëgg mal weeru ñun ñëpp mbokk jullit yi ñu ànd tuub tuub gu dëggu ci bàkkaar yi ñu defoon ngir yàlla subhanahu wa taala jéggal nu ndax xamuñu ne weer wi ndax danañ ko fekkewaat léegi ni déwén fa wallahi innaha la fursa samina an yubaadira al muslim ila tawba al ajila qabla an yufaajihu al ajal ixwaani mbokk yi ñu ngi waat ci borom bi subhanahu wa taala di wax ne temps la bu doomu yàlla subhanahu wa taala may jullit waxtu wu yàlla indil jullit pour mu war a profité mu gaawut tuub tuub gu gaaw balaa dee di ko bett jadda zamanu wa anta talab kam taqulu gadan gadan atuub gadan gadan wal mawtu aqrab bis bu nekk jant xëy fenk doomu aadama nekk ci ay bàkkaar naan suba ma tuub suba suba ndeke dee ngi ñëw kenn ku nekk ci ñun boo tuubul balaa dee ñëw yëgal ne alku nga bis bu la dee bettee te tuuboo yëgal ne sa àllaaxira yàqu na kon doomu ndey yi yéen jullit yi yéen ñi gëm ne yàllaay seen boroom muhammad la yàlla yónni ci yéen islaam mooy seen diine alquran mooy seen téere kaaba mooy seen penku ngalla ñun ak yéen yépp nanu ànd tuub ñu jël décision gu dëggu ci weer wi li gën a yées ci àdduna mooy julli bi fekke weeru koor di manifesté wu man wooruma yéen jaaykatu restaurant yi yéen ñi sol col gu bon yéen ñi tux ci mbedd yi ci weeru koor ngalawaay am leen kersa ci seen borom yéen ñi jaay restaurant ngalla am leen kersa ci seen borom ngeen tëj restaurant yi ngeen xam ne ci weeru koor lañ nekk jullit amul droit di jaay añ di jaay ndékki ci weeru koor na ngeen yëg ne bépp am am bu ngeen violé ci weer wi am ko du barkeel ci ay ordonnance lay mujj ci luy naaw kasara lay mujj du am benn barke puisque am am bi ngeen ko amee dafa ñaaw na ngeen yëg ne yéen ñi añ ci weeru koor te war a woor dara jotu leen wallahi seen añ yooyu du ngeen ci jële ak duuf du ngeen ci jële wér gu yaram ndax da ngeen a violé weeru koor jullit day am xorma ci boroomam jullit day am kersa ci boroomam yonent yàlla aadama alayhi salaam ruwiya annahu jële nañ ci borom xam-xam yi ñu ne aadama bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf mu jóge ci asamaan wàcc makasa salaasa mi asana lam yarfa ra'sahu ila sama li xayaa'i subhanahu wa taala boroom xam-xam yi nee nañ aadama toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan ngir rus yàlla ndax benn bàkkaar bi mu def yow nga nekk jullit ngadd ngabb sa cigarette ci weeru koor di xëcc di furfuri ci mbedd mi léeg-léeg nga daw jënd mbuusu ndox léeg-léeg nga dugg ci restaurant bi jënd toog ci mbedd bi di wone ne man wooruma maa tey ngalawaay amal kersa ci sa boroom rusal sa boroom weeru koor weeru yërmande la weeru sutura la amal sutura ci sa boroom même boo woorul it laqatul rusal yàlla rusal malaayika yi rusal jullit yi laqatul nëbbatul bokk comme amoo kersa ci sa boroom waaye ne fàng fàngaaral wallahi loolu ngay lekk doo ci jële dara lu dul ëllëg ordonnance booy fajujee mbokk yi ñun ñëpp dañu egg ci waxtu woo xam ne jot na ñu waaj préparé ndax gan gu màgg moo nuy nuyu si gan nag su màggee waajal ko day jaadu te wallahi nit mënta am weer wu gën a màgg weeru koor ndax mooy sangu weer yi kon plan bu njëkk wu ñuy tëral pour jëriñoo weer wi mooy al azmu sadiq dogu gu dëggu ngir sunu borom subhanahu wa taala nangul ñu ñaareel mooy xifzu siyam mbokk yi bokk na ci waajal wu ñuy waajal weer wi mooy ñu wattu sunu koor wattu nit bu wo- bu wooree da koy wattu da koy garde day indi ay garde fu garde ko nan la ñuy wattoo weeru koor mooy ci lépp loo xam ne daf ko war a yàq ndax weeru koor soo ko wattuwul mu yàqu ci looy dégg ci looy gis di ko xool ci dégg-dégg aar sa nopp aar say bët aar sa loxo aar sa tànk aar sa awra aar lépp loolu moo tax ngeen dégg yonent bi mi déggoon naan am na ñoo xam ne dañoo woor te jëlewuñ ci seen koor lu dul mar ak xiif rubba saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash bëri na nit woor ba ngoon jëlewu ci koor gi lu dul xiif ak mar kon ngal la doomu ndey bis bu la yàlla maye nga màng fekke waru koor wattul sa koor garde ko aar ko bu ko kenn yàq bu ko dara yàq bul ko yàq bu ko kenn yàq bu ko leneen yàq hifzu siyam an kulli ma yufsiduhu min simail muharram aaral sa koor bu ko lenn yàq ci looy dégg ci lu xaram xoolal ki woor ba ngoon amul lu mu sëgg takk ay casque ci noppam amul lu mu déglu lu dul musique weeru koor ak musique mbokk yi àndul nit mun ta woor di déglu musique mënul nekk imma shakiran wa imma kafuran da ngay gëm yàlla baa nga weddi yàlla am nga sa liberté ma ne da ngay gëm baa nga weddi munoo woor di déglu musique mënul nekk lekkuma ci lekk bi waaye damay naan ci ñeex mi mënul nekk da ngay lekk mbaa nga baax soo wooree amoo lenn loo war a déglu lu dul musique ana alquran ana alquranul karim foo koy teg ndax mënta occupé mënta remplacer loolu ngay déglu wallahi ëpp na ko kal xina woor di déglu ay woy ay caaxaan ñaareel bi mooy aaral sa koor ci li ngay xool sa bët yi utal ko rideau nay wàcc rideau bi sax bu jaree ut fermeture nga dañaw ko ci def ko ci léeg-léeg nga tëj naka la jullit di wooree yaakaarloog écran télévision di xool lu xaram wala nga jël sa DVD teg sa série di xool lu xaram wala nga dem doxantu ji ba ci place yu xaraam yi toog di duufal sa bët te da nga woor ixwatal iman koor ndeke du bañ a lekk rek bañ a naan waaye ndeke koor weesu na loolu ndeke foog nga aar nopp yi aar bët yi ci lépp lu koy gaar ci film ak yeneen yu demee noonu yu yàq koor waaye danañ soñ suñu doomu ndey yi nga xam ne ñoo jiite télévision ak rajo yi yéen it ragal leen yàlla nga la weeru koor su ngeen mënta wàññi sax su ngeen mënta bàyyi sax wàññi leen ngir yàlla wàññi leen julli di musique yi ngeen leen di tegal ci weeru koor yéen borom télévision yi ragal leen yàlla yéen borom rajo yi ragal leen yàlla ci weeru koor tegal leen julli di lu leen di indil tiyaaba bañ leen a indili bàkkaar ndax seen borom day yeew na seytaane ndax bañ ñu am bàkkaar kon yéen bu yàlla yeew seytaane yéen bu leen ko yeewi fexe leen ngeen jëriñ jullit ñi ci weer yi mais bu leen leen lor yéen jullit ñi fexe leen ngeen jëriñu ci weer yi mais bu leen ci loru lépp luy saaga ak xasaateeg jëw rambaaj ak fen yow jullit sori ko ndax sa koor mën a jëriñ ndax sa koor mën a nangu yeewal sa làmmiñ xefal say xef say saj sajjal say xef ubal sa gémmiñ muural say bët aaral sa koor ngir sunu borom subhanahu wa taala nangul la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na man lam yada qawla zuur wal amalu bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yada taamuhu wa sharaabu ki yàlla yónni woon ci ñun muy muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na képp ku bàyyiwul waxu caaxaan ci jëf ak wax sunu borom subhanahu wa taala amul aajo ci bàyyi gi nga bàyyi lekk ak naan woor ba pare di caaxaan daqanteeg jigéen ñi kafanteeg ñoom tappanteeg ñoom sangoondoom demandoog ñoom géej naan da ngay dàq koor effectivement dëgg la léeg-léeg sénégalais yi wax ay wax waaye yàllaa koy dëggal te ñoom duñ ko yëg xale bu góor wala xale bu jigéen bi woor ba njolloor mu ab def groupe ànd ak mbooloom jëm géej futteeku di paccax paccaxeek ñoom ci biir ndox mi kooku wax na dëgg dafa dàq kooram wallahi wax na dëgg parce que amul koor ndax loolu àndul ak koor kon wax na dëgg dafa dàqi kooram ki ne day dàqi koor ci anam woowu wax na dëgg koor dafa nekk gan goo xam ne kenn du ko dàq ci ki ko dégg waaye ñun déggunu sunu borom subhanahu wa taala moom du nangu du gërëm di seen jaamam ci barab yooyu ci weer wu màgg wii moo tax boroom xam-xam yi ñu ne radiyallahu anhum jabir ibnu abdullah radiyallahu anhu sahaaba la bu doon ànd ak yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne iza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisaanak an ilkadibi walxaram wa da anka mu ne boo wooree ngalawaay yiw jullit sa nopp na woor say bët na woor sa làmmiñ na woor ndeke gis nga koor du bañ a lekk bañ a naan waaye koor mooy say nopp na woor sa bët na woor sa làmmiñ na woor ci fen ak lépp lu araam wa da anka adal jeeri wal yakun alayka waqaarun wa sakina mu ne bàyyi lor sa dëkkandoo ci weeru koor bu dul weeru koor sax dañ la ko tere rawatina weeru koor nooy wooree ba pare di lor sa dëkkandoo ndekke mbokk yi koor dañ koy aar ci dogu dogu gu dëggu waaye aar sa làmmiñ aar sa bët aar say nopp aar bépp cër bu nekk ci sa yaram ba du fàggulu xaraam ndeke lii mooy koor bu lor sa dëkkandoo nekkal ku wegu nekkal ku dal wala yakun yawma sawmika wa yawma fitrika sawa fexeel ba bisu koor ak bis bu dul koor ci yow bu mu nuroo am na ñoo xam ne changement amul ci ñoom weeru koor ak lu dul weeru koor a yem déedéet weeru koor ak beneen weer bu dul weeru koor mbokk yi warul nuru ndax weer wi weeru jaamu yàlla la weeru xéewal la weeru yërmande weeru njëggal weeru goreel sa bopp ci safara kon warul nuroo bisu koor ak bisu bi dul koor du benn gis nga weeru koor dañ ne ci sax ku ñëw di la bëgg a jalgati di bëgg a yàq sa koor dañ ne la ne ko inni saa'im man dama woor mooy lan mu dégg ci ne man damay jaamu sama borom kon bis bi ngay xëy di jaamu borom bi warul xëy ak beneen nuroog beneen bis boo xam ne du bis boo xëy di ci jaamu yàlla subhanahu wa taala te bis yëpp nga war a xëy di ci jaamu yàlla waaye weeru koor da cee rawati ndax waxtu yëpp waxtu jaamu yàlla la war a doon amul minute amul seconde boo ci war a perte lépp daf ko war a dugal ci jaamu yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax mu ne fexeel ba bisu koor gi ak beneen bis bu mu nuroo fexeel ba ku la gis tey xam ne kii kat am na lu ko soxlaal am na ci lu mu nekk dafa occupé dafa nekk ci waxtu jaamu yàlla waaye koo xam ne waxtu kooram ak waxtu lu dul kooram a nuroo kenn xàmmeewu ko ndax dafa woor wala wóorul ndax amul changement ci comportement am ak waxam ak jëfam doomu aadama bu mel nii yàlla na ci sunu borom subhanahu wa taala musal ixwatal iman ñetteel bi mooy ci programme bi ngay tëral ba jëriñoo ci weeru koor mooy al iksaar min qiraati al quran doomu ndey ginnaaw ba nga tëralee plan aw doxalin booy jëriñu ci weeru koor ci dogu dogu gu dëgg dëggu aar sa làmmiñ ñetteel mooy fexeel ba nga jàng alquran lu baree bari ci weer wi soo mënul jàng alquran demal ca barab yi ñuy jànge alquran mbokk yi woor dem ca jàkka ja déglu ji tafsir ak woor dem géej est-ce que ñaar ñi war nañ leen a gam-gamle est-ce que war nañ leen a natt ci ban a gën wallahi alazim xool leen géej gi ni muy feesee nga defe ne jullit bu woor war na dem géej ànd ak ay xale yu jigéen wala ànd ak ay xale yu góor bul ñu nax suñu bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju soo wooree bu fekkee da nga bëgg jaamu yàlla dëgg la ci yow am na barab xam nga ne yoo xam ne fa nga war a jëm bu fekkoon ne Sénégal li woor yëpp ci jàkka yi doonga lañ yem kon bu koor gi jeexee changement am waaye wa qalilum min ibadiya shakur dafa néew ci jaamu yàlla yuy sant ni géej gi di feesee te duñ fa jële lu dul koor gu yàqu ak ñenn ñi lab nar fa dee jaar noonu dem safara ndax ku lab ci mooy yàlla ku dee ci mooy yàlla xam ngeen ne boo dee alko nañu soññ suñuy doom nañu soññ suñuy mbokk ma ni ku woor waroo dem géej bu fekkee ne da nga woor waaye bu fekkee da nga xiifal nag xiifal moom ak koor du benn mën ngaa xii xiifal kon bu la fu la neex nga def comme da ngaa xiifal wooroo waaye bu fekkee dëgg-dëgg rek da nga woor xam nga ne am na barab yoo xam ne fa nga war a dem jaamu ji sa borom subhanahu wa taala al iksaar min qiraati al quran al karim wa xifzihi fexe ba weeru koor nit mën na ci tëral programme boo xam ne mën na cee wàcc alquran xëy na loolu ki mokkal alquran la ñuy wax ki ko jàng ki ko mën a liir am na ku nekk ci ginnaaw naan waaw man su comme mënuma ko liir nag ba tey ci nga bokk man ni demal ca jàkka ja boo demee ngay déglu tafsir demal ca barab yi ñuy jaamoo yàlla moytul ma grand place woor amoo lay def lu dul day dam yi di dam yi woor amoo lay def lu dul di lido dem ci géej gi di mariage damyee yan lañ ci yàlla musal mbokk yi wallaay bu fekkee dañu bëgg a wax dëgg rek dañu bëgg a jëriñoon te dañuy waxante dëgg ma ne Sénégal dara tardé lu ñu lu dul jaamu yàlla bu ànd ak ay fo ay caaxaan jaamu yàlla ju dañ ko feesal del ay caaxaan da ngay romb ay kilifa daaj seen mbaar amuñu lu ñuy def lu dul di damyee rawatina ci bëccëgu weeru koor boo waxee ñu ne lii moo toog lii moo gën ngay jëw toog di jëw sax moo gën nga nekk ci di damyee damyee ban njëriñ la am rey waxtu sànq waxtu te jullit du sànq waxtu ndax waxtu wi dafa foor ba yàlla di ci giñ naan wal asr giñ naa ci jamono inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr borom bi subhanahu wa taala nee na adduna bi ñëpp alku nañ ba mu des ñeenti nit ñëpp perte nañ ba mu des ñeenti nit ñi gëm yàlla taxaw ci jëf ju baax di dénkante dëgg di dénkante muñ kon naka ngay wooree amoo looy def lu dul di dem yi ci di ko layee ay bëgguma def nangam bëgguma def nangam est-ce que amul leneen loo ko mun a remplacer loolu demal ci jàkk ji dama nga déglu ji alquran yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam nee na kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takun il xaamis fa taxlik yonent yàlla muhammad nee na nekkal boroom xam-xam am ku ne ne mënumaa nekk boroom xam-xam mu ne ko kon nekkal ku bëgg xam-xam wala nga bëgg borom xam-xam wala ngay déglu borom xam-xam mu ne bul nekk juróomeel ñu ne kuy juróomeel mu ne mooy ki ki dul borom xam-xam bëggul borom xam-xam yi du déglu borom xam-xam yi bëggu leen yonent yàlla Muhammad nee na kii mooy ki alku nit na nekk borom xam-xam soo mënul nekk borom xam-xam nga bëgg borom xam-xam yi wala nga leen di déglu wala nga nekk kuy jàngi nekkal borom xam-xam mënoo ko demal nga jàngi mënoo ko bëgg leen mënoo ko déglu leen waaye bul nekk juróomeel juróomeel mooy ku alku ixwaan yi lii mooy yoon woo xam ne doxalin wu jullit di tëral ci weeru koor pour mu mën a jëriñu fokk ñu tëral ay yoon ay plan yoo xam ne dañuy organiser sunu weer wii ba weer wi bu jeexee ñu mën a gis ay traces yu mu bàyyi ci ñun ñu mën a gis ay changement waaye bu fekkee ne yow sa koor mooy xëdd bañ a lekk bañ a naan ba timis jot loolu rek mooy sa koor yow wooroo yow yaa ngi bokk ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañoo woor ba koor jeex waaye jëriñu ci lu dul xiif ak mar loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal nañu tëral aw tëralin wala aw doxalin boo xam ne bu weeru koor jeexee dina tax ñu mën a continuer di jàng alquran ak di ko wat nañu tëral bis bu nekk lu ñuy jàng ci alquran bis bi wala guddi gi moo xam dañ koy def ci mbooloo wala ñu koy def par kenn kenn wala ñu koy def en famille ngalawaay ginnaaw waxtu yi ginnaaw julli fajar ci borom kër gu waa këram jàng alquran léeg-léeg nga gis koo xam ne li may wax su weeru koor jotee fajar gi nga gis jàkk yi fees del ñooñu mooy ñiy jaamu xëdd ndax xëdd tax ñu yeewu fajar waaye julli fajar taxul ñu yeewu xëdd ba pare tëddaat léeg-léeg nga gis ci sax ku xëdd dem jàkka ñëwaat tëddaat mbokk yi tubaab yi sax dañ naan chaque chose en son temps lu nekk ak waxtoom waxtu yi waxtu jaamu yàlla la nañ ko waaj waaye Sénégal ñoom seen waaj mooy lu ñuy xëdde lu ñuy lekk lu ñuy naan lenn saa yi sax nga gis ci ku changé climatiseur am ndax mën a nelaw ki ci gën a dee sax yeneen saa yi moo dem ki jënd uppukaay ngir mën cee upp benn mbokk jullit dafa ziyaare ji waa këram benn kër magam mu ñëw doon waxtaan ak ñoom rek jékki-jékki rek soxna si daan ne way sama ndey laa ilaha illa allah way musiba dikkati na kooku ne ko lu xew mbaa jàmm la mu ne ko musiba dikk mu ne ko ban musiba mu ne ko weeru koor mu ne ko déet waay mu ne ko ah kay musiba kese la billaay maa ko bañ bu ñëwatee rek ñu sonn billaay maa ko bañ bu ñëwatee rek ñu sonn mbokk yi imagine leen naka la ab jullit di jàppee weeru koor musiba la naka la ab jullit di jàppee ne weeru koor weeru coono la parce que moom jàpp na ne comme du lekk dañ ko ci tere lekk dañ ko ci tere naan dañ ko ci tere mooy yàlla dañ ko ci tere tooñ yàlla rek kon weeri weeru musiba la xoola kii fi mu déggee mu wuteeg sahabatul kiram ñoom ñi doon yàkkamti ñenn ci ñoom sax doon mébét adduna bi yépp nekk koor moo tax ñàkk dégg diina baaxul te lenn jullit lenn ci ay jullit dañoo déggul diini moo tax ñu jàpp weeru koor weeru mbugal weeru coono weeru tumaranke weeru jafe-jafe weeru naqar weeru metit ñooñu yenn ci ay jullit noonu lañ déggee wuuteeg nit ñu baax ñi wuuteeg boroom xam-xam yi wuuteeg sahabatul kiram ashabu rasul muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne doon nañ mébét di ñaan yàlla dund gi yépp nekk weer weer koor dañu laaj abu zar alxafaari radiallahu anhu wa ardaahu loo gën a bëgg mu ne di woor fu ma toll ñu ne ko ak lan mu ne di feebar fu ma toll ñu ne lan mu ne ak gaaw a dee allahu akbar ixwaan yi xool leen ñett yi woor fu ma toll di xiif ñu ne ko lu tax mu ne ndax duma am bàkkaar su ma wooree duma am benn bàkkaar ndax sama lépp laay wattu gis nga kii fi mu déggee ñu ne ko feebar mu ne ko feebar yàlla dalay jéggal say bàkkaar moo tax yonent bi doon wax ne laa baasa tahur insha allah ñu ne ko dee mu ne ma dajeeg sama borom mu dugal ma aljanna kon ñi ñun ak ñoom duñu benn inna saayakum la shatta ñun ak ñoom duñu benn duñu ñoom duñu nun ixwatal iman ñeenteel ci doxalin wu nuy doxal tëralin wu nuy tëral pour jëriñoo weeru koor may at taqlilu min an nawm foog ñu néewal nelaw yi nag nelaw yi doy na adduna bi yëpp a ngi dem adduna bi yëpp a ngi yëngu l'islam a ngi yëngu partout dans le monde julliti Sénégal foog ñu yeewu li gën a ruslu ci réew mi mooy dañoo tardé ci diina jàpp ñoo fi raw loolu fi gën a ruslu nag léeg-léeg nga dégg ñu ne li am ci réew mi amul fenn wax nañ dëgg li am fii amul fenn waxoon naa sànq ne léeg-léeg ñu wax ay baat yàllaa ñu ci yay te xamuñu li am ci réew mi wax nañ dëgg amul fenn quatre-vingt-quinze pour cent musulman te du feeñ fenn ci dund gi wax nañ dëgg amul fenn fii rek la am doo ko gis ci kër yi doo ko gis ci mbedd yi doo ko gis ci liggéeykaay yi léeg-léeg sax doo ko gis ci jàkka yi wax nañ dëgg amul fenn foog ñu néewal nelaw yi naka la jullit di changer con climatiseur u néegam wala ventilateur u néegam ci weeru koor ngir mën a nelaw wala changer lalam ngir mën a nelaw benn soxna mu ngi ma doon nettali sox borom këram nee na borom kër gi dafa dégg asalaatu xayru minan nawmi mu jóg sangu ba muy génn pour war a dem jàkk mu dégg ñu ne asalaamualeykum ne sëlmañ nañ julli gi comme tardé na kooku lu ko waroon mbokk yi laaj bu ma leen laaj la lu ko waroon mooy mu lal si yaadaam ci biir néegam julli waaye waa ji dafa dem tëddaat soxna si ne ko ah mu ne ko jàkka ji julli nañ ba pare kon moom jarul muy julli quoi ci waxtu wi na dem tëddi ba saa yu yeewoon ak léegi mu dem jàppaat julli noonu la ko doxalee moom noonu la ko gisee kon ma ni weeru koor du weeru nelaw li ëpp ci nit ñi jàpp na ne weeru koor weeru nelaw la ndax su ma nelawee du ma yëg xiif du ma yëg coono du ma yëg mar damay nelaw ginnaaw fajar ba su ma déggee allahu akbar timis ma jóg waa mbokk mi yow mi nelaw waxtu woowu lépp xam nga li nga sànk ci ay waxtu xam nga li nga sànq ci jaamu yàlla julli woo tisbaar julli woo takkusaan xoola li nga perte ci ay tiyaaba koor goo xam ne danga koo def te du julli kooku ban ban diine la koor gu àndul ak julli kooku ban diine la du diine lislaam ndax jànguñu borom bi subhanahu wa taala mu ne inna salata kaanat ala al muminina kitaaban mawqut julli daf am waxtu yow nga bëgg ginnaaw julli fajar nga nelaw ba julli timis sa doxalin wi nga doxal kan moo la ko jàngal ci ban téere nga ko jëlee julli gu àndul ak koor ci ban téere lañ ko jàngee ci ban diina la nekk kon fokk ñu xam ne mbir yi du suñu xalaat waaye ay texte la yu la yu yàlla wàcce ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sàkk ci ñun ñu dundee noonu léeg-léeg nga dégg ku ne démb de sama koor gi neex na depuis fajar laa tëdd ba timis jot nanu ragal yàlla koor du nelaw du journée bu ñuy nelaw jàngal histoire nga yëg xeex yi xew ci weeru koor badar mooy pee ci weeru koor la war ba ngoon di xeex fatxu mag ay bëccëg yoo xam ne yëpp saxaaba yi dañ ko jihaad doomu ndey mbokk yi ci yàlla dañ delloo si xel yi ñu xam ne sunu borom moo nu bëgg rek baaxenu ay bëccëg yoo xam ne dañ ko cee war a jaamu dañ ko cee war a sargal mu dëxëñal ñu ci biir weer woowu guddi goo xam ne moo gën junni weer xayrun min alfi shahr pour rek ñu mën a màng ay tiyaaba ngir mën a dugg aljanna ngir dajeeg suñu borom ëllëg am ngërëmam ci àdduna am kontaanteem allaaxira loolu teg rek moo tax yàlla jox ñu koor waaye yow boo jàppee ne weeru koor weeru mbugal yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam seen na benn waaye ci weeru koor kawar gaa ngi coqaaral sikkim bi poussière salte yaram waa ngi weex waa jaa ngi dam loos wi yonent bi ne ko lu xew mu ne ko inni saa'im dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal koor du tere nit mu sangu du la teree diw du la teree peñewu du la teree leer du la teree solu du la teree liggéey waaye koor goo xam ne yaa ngi damm loos yaa ngi salte yaa ngi tilim weex fur wax ndànk damm sa mbagg ku la gis dafa ne da ngay waaj a dem alaaxira suñ la nee lan la nga ne dama woor loolu du koor weeru koor weeru leer la weeru set la ci biir ak ci biti soj sa gémmiñ ba mu set xeeñu lu neex sol lu set gàddu sa kaamil utali jàkk bu dee jigéen mu jël kolam muuru muraay bu rafet utali jàkk boo demee nga dem toog fa jigéen ñi toog nga déglu alquran ba jant bi soo nga dellu sa kër toggi ndogu nga am tiyaaba yu dul jeex asa amaana ne bu koor gi jeexee diplôme boobu ñuy ut ci weeru koor te yàlla subhanahu wa taala di ñu ko takkal diplôme boobu tudd at taqwa muy ragal yàlla su koor gi jeexee nga am ko ixwatal iman ndeke ñeenteel doxalin bu nit di doxal ci weeru koor muy néewali nelaw juróomeel mooy laa ifraat wala tafrit mbokk yi juróomeelu doxalin mooy ëppal gi am ci weeru koor yàq nga gis boroom kër goo xam ne lu ne lay jal waxtu ndogoog waxtu xëdd gaa yi dañuy lekk ba duñ mën a naafila loolu ban diine la ban diine lañ wax ne la nga lekk ba dootal jaamu yàlla léeg-léeg ñu ndogu ba pare ngay nit kaa ñu naafila mu ne tey moom mënuma naafila tey moom ma dem leen rek ngeen mënuma sax jóg waa ji fa mu ndogoo la naan las tëdd bu moytuwul dañ koy yëkkati tëral ci kaw la la mu dem tëddi loolu ban diine la yonent yàlla muhammad alayhi salaam nee na yàlla moo farataal ci yéen koor gi ma sunnaal ci yéen naafila bi kon ndekee koor tamit ëppal amu ci mànkeel amu ci nekkal ci digg bi comme ni yàlla subhanahu wa taala waxee yéen xeet ngeen wu nekk ci digg bi amul ëppal ci lépp nag ñun xeet lañ woo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ñu def xeet wi nekk ci digg bi kuntum xayra umma ummatan wasuta la ñu yàlla tuddee nañu xam ne kon jullit bi ci ay waxtoom ak yëpp daf ko war a organiser ci weer wi du ëppal wàll wi du ëppal wàll wi day nekk ci digg bi ci léppam ci jaamu yàlla gi ci dundam ni muy dundee ci lépp léeg-léeg nga gis ay nit jal lekk di lekk ba waxtu passé waxtu salaatu passé lekk gi mooy neex ba duñ ko mun a ba soo waxee ñu ni ñun foog ñu lekk benn mbokk mu ngi may nettali ci weeru koor nee na dañu xëy guddi gi ñu togg ay ginaar ba ginaar yi des ñor naak ñonul ñu fay gaz bi pour fajar bu ñu yeewoo eggali ko yàlla def ñu biddanti bu ñu biddantee fekk nit ñi di wasifa ngeen waxtu woowu naaj na kenn ci ñoom dugg ci wanag wi tuur ndox jàpp julli ñoo fekk leen ñu toog di di di di lekk mu neen ah ñu xam ne dafa nar a wax rek ñu yuuxudoo ko nag ñu dimbali nag ñu mu noppi waa ji yému ñu rek wax ci nag ñu dimbali waaye dañ ko ne ñun duñ sa morom ku réew nga yar woo ñun say baay lañ ah yow kañ nga mel nii kañ nga commencé am diine bay waaraate waa ji daal di jël ay bagage am dem tëdd toog ba ñu demee ba ngoon nag ba ñu xam ne def nañ musiba xam ne bis boobu wooruñu waaye dañoo ndékki xëdduñu dañoo ndékki borom kër gi ñëw naa ko waaw man walla jaar naa ci imaam sax doon naa ko laaj mais bon xam naa ne rek bon daal di taf tafee wax ci kon mbokk yi ñun ñëm nañu ànd waajal weeru koor aar ko comme tomb yi ñu wax ñu ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla may ñu woor ko ci jàmm bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin incha allah bu ngeen amee ay laaj yu ngeen di yónnee TSL incha allah borom xam-xam yaa ngi fa pare nañ pour tontu yëpp ànd ak yéen programme weeru koor gi ñu ñaanal waa barab bi ak waa daara ji yal na yàlla sàmm leen aar leen ñu ngi nuyu mbokk yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.